ñu ngi am mbégte dalal euh, Mayel Thiam administrateur alliance pour la république di APR ñu ngi lay nuyu di am mbégte euh, am la gan ci matinalu tey bi jërëjëf soxna si ngi lay nuyu di nuyu se auditeurs yëpp ñi nekk biir Sénégal ak euh, bitim réew di leen ziara di leen ñaanal ba si jàmm. voilà ñu tàmbali waxtaan wi ak euh, candidature président Macky Sall ci deux mille vingt quatre bi ñu dëgmal mu mel ni dafa jur weerante ci biir APR ndax dégg na nañu barki démb mbay Ndiaye directeur des structures wax ni APR amul beneen plan bu dul président Macky mooy seen candidat deux mille vingt quatre ginnaaw gi ñu jottali nu say kàddu ñu ne yow euh, da nga ni APR waxtaaneegul loolu tënkagu leen ci dara téye ndax déggoo ngeen ci candidature président Macky jërëjëf maa lay gërëm di la sant ci laaj bi euh, loolu nga wax man bi ma ko gisee ci tas ci euh, ci journaux yi dama xaw a jaaxle ndax euh, maag Mbay Njaay mësuñoo woroo dafa weesu sax Mbay Njaay responsable yi nga xam ni ñoo nekk ci biir APR nekk ci secrétariat exécutif bi nekk suñu responsable ci gox goxaan yi amul benn woroo ci li nga xam ni mooy suñu candidat deux mille vingt quatre alliance pour la république APR ba fi wax ak yow nii kenn benn mbër lañu am mooy Macky Sall euh, te lu war a mën a lu xel war a mën a nangu la ndax boo dee dem ci xare da ngay seet ña nga xam ni que ni ñoo gën a euh, jàppandi pour am li nga bëgg te tey gis nañ ni que ni Macky Sall boo xoolee ak ni ko sénégalais yi bëggee boo xoolee li nga xam ni moom la fi def nga xoolit li nga xam ni moom la réew mi jànkonteel ci wàllu jëflanteeg bitim réew ci wàllu également tolluwaayu réew mi ak fi nga xam ni fa la ko jële woon ak jéego yim ci def yépp waay waay ay la yéwén ñun li ñu bëgg mooy président boo xam ni mën na yóbbu Sénégal ci dëkku émergence te wone na ko gannaaw nag wone na ko te ci suñu gis-gisu bopp gisuñu fenn foo xam ni yoon tere na ko mu nekk candidat mais Macky Sall mooy suñu candidat ñun alliance pour la république. kon daal ma la déggee gannaaw président Macky Sall amul keneen APR ku présidentiable. waxuma la loolu de waxuma la loolu. ndax euh, présidentiable kooku yàlla rek moo ko xam du dëgg li nga xam ni moom laa la wax dama ni la fi ñu toll nii Macky Sall mooy suñu mbër d'accord gisuleen beneen mbër bu dul moom waaye nag dafa fekk ne euh, jàpp nañu ne amul sañ-sañu def euh, troisième mandat ba tax sax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy société civile bi da wax ne jàmm gën mandaa mandat lataa boobu am na ñu doon artu naan ko bu ko sax jéem ndax ragalu leen lii jur coow ci Sénégal maa sax dugal ko ci guuta xam nga dañu nekk réew moo xam Euh, réewu démocratie la démocratie nag boo ko déggee mooy euh, kenn ku ne am nga droit wax la nga xalaate waaye nag démocratie dana am gàllankoor bu dee yow da ngaa jàpp ni nii ma rek noonu la ñëpp war a xalaate soo ko defee rek yaa ngi andi gàllankoor ci démocratie am na ñoo xam ni nee nañu que président Macky Sall warul laajaat benn mandat mu nekk ñaareelu mandat wu juróomi at yi nga xam ni moom la charte ndeyu réew mi wax ni que ni koo xam ni dem na nekk président def juróomi at am na droit defaat beneen mandat wu juróomi at bu ca demee foofu la yem loolu la charte ndeyu réew mi wax léegi am na ñoo xam ni gise nañ ko neneen te ñi ko gise neneen euh, bokk na ci ñi nga xam ni que ni ci opposition bi même ñoo xam ni ay ay leaderu opposition ñoom ci seen wàllu bopp nii ma la waxee ni que ni noonu lañu ñu noonu la constitution bi wax ñoom gisee nañ ko noonu ba génn def ci ay sorti wax ko ñëpp dégg ko du dëgg ñoom seen xalaat lañ joxe noonu ñu joxe seen xalaat ñun noonu lañu ñu amee suñu xalaat ni que ni charte ndeyu réew mi dafa ni mandat bi juróomi at la kenn amul droit def lu ëpp ñaari mandat wu juróomi at te président Macky Sall benn mandat juróomi atam bi mooy doog a jeex nii loolu ñun suñu xalaat la am na ñeneen ñu xalaat ni que ni président Macky Sall mandat wu juróom-ñaari at bi dañ koy boole jaxase kook mandat wu juróomi at bi am na ñu xalaate noonu loolu aussi seen sañ-sañ la waaye la nga xam ne nanguwuma ko nag mooy ñoom loolu nekk seen sañ-sañ ñu ni loolu moo fi nekk ba faaw waaye gannaaw dañu nekk réew boo xam ni réew dafa am yoon te charte ndeyu réew mi waxoon na ni que ni bu ñu demee ba nekk ci ay jeexi jaaxa yi am na benn kuréel goo xam ni moom la ñu jagleel mu wax la nga xam ni mooy yoon. waaw bu dee nag ñi nga xam ni même dañuy ŋàññ loolu bu dee dañoo ormal suñu réew ormal suñu charte ndeyu réew ormal suñuy ba banqaasu réew waruñoo taxaw ni que ni ki nga xam ni moom lañu jagleel mu leeral loolu du fi leerale loolu. loolu jàpp naa ni que ni baaxul ci démocratie. conseil constitutionnel ngay wax te gars yi nee nañu conseil constitutionnel fu président Macky Sall bëgg mu xool lay xool. mais loolu loolu waxu naxasaay la loolu waxu naxasaay la ndax il faut ñu ormal ñi nga xam ne ñoo nekk conseil constitutionnel mais dafa mel ni man bu ma dee dégg day mel ni danaan dañ naan am na ñu bëgg Sénégal am ñu bëggul Sénégal mel ni ki ni ñu nekk opposition bi ñoo bëgg Sénégal ñu nekk ci nguur gi bëgguñu Sénégal ñi nekk ci justice bi bëgguñu Sénégal dañ ko war a bàyyi. ay goro a fa nekk mais ay gor la yoo xam ni également dañuy tënku ci li nga xam ni moom la ñu bind conseil constitutionnel waxuñu ko mu defaat mu changé article conseil yi waxuñu ko loolu dañu ko li nga xam ni bind na ko na ko wax kon war nañ leen óolu ay sénégalais lañu comme ñun. d'accord mais bu loolu yëpp weesoo yaakaaroon ne da dañoo bëgg seen réew nekk ñu xarañ ci seen liggéey faaw ñu ormal leen. Mm-hmm. d'accord bu loolu yëpp weesoo ndax jàppoon itam delloo ngeen Sénégal ginnaaw ci ay fukki at xëy na ndax lii ngeen di wax tey nii li coow li ñu toll nii ca lañ mille 2011 te yéen a ngi ko doon ñaawlu maanaam la ngeen doon joxoñee président Ablaye waat ndax nekkoo leen di ko def. xam nga du benn man damay dégg nit di ko di ko di ko boole mais du benn. ndax boo xoolee ni ñu bindee constitution bi nga xool ko ak nañ ko bindee woon ca jamono yi Abdoulaye Wade am na ci loo xam ni que ni dañoo oro fii dañ la wax ni que ni mandat bi juróomi at la kenn amul droit ñaari mandat waaw léegi lu tax kon xalaatu ñu ni mandat bi juróom at la wala fukki at la waxuñu ni mandat bi fukki at la mandat bi juróomi at la kenn amul droit def lu ëpp ñaari mandat mais loolu mooy kenn amul droit lu ëpp def lu ëpp ñaari mandat wu juróomi at te ñun fàtte xaju fi keroog ba ñu demee ba réew mi jaxasoo andi jiixi jaaxa ci interprétation wu constitution bi ba nga xamee ni que ni conseil constitutionnel bañ ko saisir mu wax la mu wax ñun ba mu waxee la mu wax ñu ci benn baat dañ caa daal di tënku jog dem seeti sénégalais yi te it bu ma déggee nit ñi di wax day mel ni que ni moom daal euh, euh, ragal ba ñu ragal Macky Sall mille 2012 ba tey rek moo fi nekk ndax ñun waxaguñu waxu élection waxu candidature la ñuy wax wàllu fi ragal jar waxu candidature la ñuy wax te candidature boobu ginnaaw bu Macky Sall ne moom candidat la am na yeneen yi maanaam euh, étape yoo xam ni dañ ci war a jaar. bu fekkee ni changé wuñu loi bi war na ñu jàll ci d' abord bu waxee ni moom candidat la mu am ñu ko weddi conseil constitutionnel war na wax bu conseil constitutionnel waxee ba pare am na parrainage bu ñu defee parrainage ba pare mais sénégalais yi ñooy voté waaw léegi nag lu tax nag ñu bëgg nag ni que ni euh, Macky Sall dal amul droit ni man candidat la loolu fan lañ ko mës a gis mais bu ko neexee mu ni candidat la ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ànd moom mais bu ñu neexee ñu ni diw mi mooy suñu candidat waaw mais loolu bu dee ci wàllu droit la vraiment société civile ñuy wax yëpp ndax ndax nit léegi amul droit ndax nit amul droit ni ceeba ma gënal cere mais loolu mais droit wu ku nekk la ñun dañ ñu fi ñu toll nii mooy suñu candidat moom nag waxagul waaw bu demee ba wax yëf yi andi ay jeexi jaaxa mais dañuy dem ci conseil constitutionnel ñun bu boobaa lu conseil constitutionnel wax ñu tënk ci fa jógee nag dem laaj sénégalais yi ku sénégalais yi fal kooku falu mooy lu ci andi coow li xanaa dañu waxal conseil constitutionnel boobu la gars yi wóoluwul waaw conseil constitutionnel boobu la du lu ma lay du lu lay xibaar waaw alors bu mhm. <laughs> alors bu weesoo conseil constitutionnel leneen li ñu wóoluwul ci réew mi itam mooy justice bi jàpp nañ ne moom dañ ko politiser bu baax a baax exécutif bi ci teg loxo Biram Pape Alé it noonee lañ ko jàppee euh, tëj ko ci liggéeyam bu mu doon def euh, ñu bari ci ay naataangoo jàpp ni euh, kuréel yi sax ba di ko taxawu ni que li ñu ko tëjee jaru ko ndax am na sañ ñu joxe xibaar euh, loola yëpp yow wax dëgg yàlla noo ko jàppe ndax gisoo ni itam dañuy xaw a ëppal yenn saay ci ci wàllu yoon ak na ñuy jàppee ñenn ñi ñu jàpp ne sax xëy na la ñuy wax moo leen arrangé wul. xam nga soxna si man bu dee suma naataangoo nu mu tuddati suñu moo xam ni. caabi da koo féete ginnaaw wax ci ay mbiram dafa may tiis ndax bu ma sañoon kenn du am fitna bu mel noonu waaye dafa di dañu nekk ci réew moo xam ni dafa am lu ñu tënk te li ñu tënk nag ñëpp ko xam nag kenn ku ci nekk ci sa liggéey xam nga la la tënk ci sa liggéey xam nga la nga xam nga say ak xam nga say yelleef kenn ku ci nekk waaw chauffeur bi tey ñoom suba suñu xëyee ñu ngi daw ay risque ndax chauffeur bu mu fiir doomu aadama ba kooku faatu ji mais dañ koy jël tëj ko ci kaso bi te pourtant ci liggéeyam la nekkoon mais loolu dafa nekk charte yoo xam ni ñun ñëpp dañ cee tënku ngir dëgëral suñu réew. Euh, léegi nag dégg naa ñu naan dañuy politiser justice bi mais man xaw ma finalement kan la ñu war a gëm bu fekkee ni que ni justice bi joxe na benn verdict boo xam ni arrangé na opposition ñu ni justice bi baax na. loolu yéen a ngi koy fàttaliku bërki dem bi ci ay cas yu bëri yoo xam ni fii du ma ci dellusi mais bu dee justice bi liir na droit wax loo xam ni que ni arrangé wul opposition ñu ni justice bi dafa jéng mooy li waa ji doon wax rek boo jaaxaanee ñu ni waroo jaaxaan boo taxawee waroo ñu ni waroo taxaw boo jonkanee ñu ni waroo jonkan mani il faut ñu delloo si suñu xel ñooñu ñëpp di wax tey kuñ ci escroqué woon xaalis boo yeewoo suba da ngay dem porter ji plainte tribunal ñu ñëpp ci yem. waaw tant que tant que concerné wul homme politique amul problème. ah loolu de yaa ko wax. loolu de yaa wax gis nañ fi gis nañ fi ay dossiers yoo xam ne day homme politique la concerné. les même dossiers ñu gis ko feneen ni nañu traité opposition bi ni nañu traité dossier yow ñu ko traité dossier homme politique loolu de am na fi. alors ñu wax ci euh, Benno Bokk Yaakaar euh, ndax am na ay alliés yu génn semaine bi wax ne nañu ko xoolaat daal joyanti ko ndax ni muy doxee moom fi mu ne dundu deewut euh, lu ko jiitu itam ay baat jóge ca AFP. ñuy ñaawlu ni Benno Bokk Yaakaar di doxee tey ba wax ni sax na yëf yi gën a leer plus de transparence noonu lañ ko waxee woon alors tey seen euh, coalition bi moom daa wopp wala ñàkk déggoo moo ciy xeeñ maa ngi euh, li ma la bëgg a wax mooy ba fi may wax ak yow nii dégguma benn kuréel bu bokk Benno Bokk Yaakaar bu def déclaration officielle bu jëm ci loolu nga may wax noonu dégg nañu nag ay yenn responsable ak yenn militant ñu joxe seen xalaat mais loolu mooy démocratie mais loolu mooy mais mais mais mais ñun ba fi ñu toog nii ñu ngi santaat yàlla encore une fois ci yor coalition bi nga xam ni moo gën a gudd fan coalition bépp coalition depuis histoire du Sénégal te loolu li ko waral mooy la nga xam ni moo leen boole moo ëpp solo la nga xam ni mooy seeni yëg-yëg te li ñu boole mooy ñu conduire plan Sénégal émergent defar tali yi defar defar defar mbay mi Euh, wàññi dund gi et cetera te loolu ñu ngi ci suba suñu xëyee ba fi wax ak yow nii gisuma benn kuréel bu def déclaration officielle bu méngoo ak loolu nga may wax ni te ñun nag wax dëgg yàlla defuñu woon alliance ak ay nit mais dañoo def alliance ak ay kuréel yoo xam ni am nañu seeni mode d'organisation am nañu seeni orientation te jàpp naa ni que ni ba léegi la ñu waxantee wax ñoom ñi ngi ci wéy te incha allah noonu lañ ciy wéyee ba deux ñu jeexal ak coupe du monde bi am euh, ci atum deux mille vingt deux bi fii ak euh, juróom-benn fan ca Qatar Sénégal war caa dem waaye dem gu xaw a teey xel ñu la ciy laaj ndax entraîneur de football nga yaa ngi am diplôme mu fédération française de football tey Sadio Mané blessé yeneen joueur xëy na nekk ci ay euh, jafe-jafe ñu bari jaaxle ci participation wu Sénégal ndax yow it da nga cee jaaxle ak looy digal Aliou Cissé ci jamono yeeg nu ci Sénégal war a duggee boobu. monde. d'abord tàmbali di ñaan yàlla rek yàlla di ñaan yàlla mu dimbali ñu ba Sadio maane nekkaat en pleine forme dimbali ñu également ba beneen joueur bañ ci am benn blessure ndax aussi sport ak loolu moo ànd. di wax ni nag également euh, li nga xam ni maa ngi koy dégg man daf ma xaw a jaaxal tuuti ndax euh, dëgg la Sadio Mané valeur ajoutée bu bu wóor la ci suñu équipe waaye il faut tout de suite opinion bi ñëpp dafa mel ni dama dégg ni bu Sadio Mané demul du ñu am ndam. te loolu baaxul ci ay joueur baaxul ci supporters yi baaxul même ci euh, suñuy ay adversaires bi ko dégg ñun li ñu war a def mooy nañu jël acte ni que ni Sadio Mané dëgg la am na blessure boo xam ni suñu borom mën nañoo dimbali mën na wér ni mu gën a gaawee mais ñu xamal nit ñi ni que ni équipe la ñu yore équipe nationale lañu wax te équipe nationale du ay individualité équipe mën nga am lu mat dix onze Maradona ci benn équipe te doo joxe résultat équipe dafa am yeneen yu ci nekk ay complémentarité dafa am ay synergie dafa am yu bëri bëri bëri bëri yoo xam ne mën nga dugal sax ñaari coups yi dëgg ci benn équipe ñu yàq la nga defoon lépp tactiquement donc nañu jàpp ni que ni am nañu équipe te xale yi nekk ci équipe bi ñoo mag ñi ñu nar a football la dool Qatar ñoom ñooy daje championnat tous les jours xamante nañu bu baax xale yu bëgg réew mi xale yu am jom lañu nañ leen gëmloo ni que ni la nga xam ne defoon nañ ko ba andi coupe d'Afrique bi buñ ko defaatee ci mondial bi ñu jël résultat bu ñu amee seen camarade bu blessé ñun ñëpp ñu ngi solidaire di ñaan yàlla yàlla may ko wér waaye taxul nag dañu jàkkaarloog benn combat boo xam ni suñu doole yëpp lañ war a yóbbu équipe lañ fa war a yóbbu mais waru fa waruñu fa yóbbu ay individualité. kon daal jàpp nga ne coow lii yëpp xëy na baaxul sax ci mentalu équipe bi. baaxul kenn du ko def am nañu joueur bu d'accord mais nañu bàyyi. looy digal looy digal Aliou Cissé tey kon ci jamono yii lu ñu war a def ngir xëy na gën a yokk doole équipe bi. Euh, d'abord li may li may njëkk a digal Aliou Cissé mooy na na taxaw ci mantalu joueur yi parce que coupe du monde mental moo koy gagné compétition yu mel nii na taxaw ci mentalu booy ah, bañ rek euh, di nelaw ci kaw saajo Mané blessé na Sadio blessé na ñëpp a ko mettitlu ñëpp a ngi ko ñaanal yàlla mu wér. waaye ñun suñu football yemul foofu suñu football mën nga jëm Qatar te Qatar dañ ko bëgg a jëli coupe na dugal ci boppu xale yi ni li ka nii dañuy dem compétition ak seeni nawle donc nag Sénégal gépp nekk seen ginnaaw moom tactiquement war na mën a teg ay schéma yoo xam ni en fonction des équipes yu ñuy dajeel te schéma bu mu mën a teg je suis sûr que dina am élément boo xam ni dana mën a nekk acteur ak fu mu ko bëggee parce que l'équipe quand même est assez fournie rek la ñu nañu dem jëli ndam yi te ñaanal Sadio Mané mu wér bu wéree na ñëw fekk suñu ñu continuer esprit de gagnant bi nga xam ni moom moo mës a nekk ci équipe nationale pour dem andi ñu ndam li. jërëjëf Mayel Thiam amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaay administrateur bu APR Alliance pour la République jërëjëf. merci jërëjëf maa ngi jaajëfal seen auditeurs yëpp di leen ñaanal bésu jàmm ci barke Yonent bi. merci beaucoup.